asalaamaaleykum wa rahmatullah alaaji laxlaw mi gën a gën dama ne falang ba dajeg yambe yandeela maajoor Diouf ay waay yandeela maajoor yandeela maajoor dégg naa fee fu nga yor noonu ay dafa am kuñ fa sàcc ci xale yi benn yandeel xanaa foo amul sécurité ñaare ba dégg naa ñu naan sécurité ki nga xam ne mooy sécurité foofu moo moo sàcc gone ka jox ko meer ñaare ba déggaat naa ñu ne meer ba moo moo la dénkoon doom ja jëlaat doomam ah? bi mu ko bëggee jël nga laaj ko 10 millions ne da jël da nga doog ko jox doom yow diggante bi mu ko dénkee da nga fay da nga fay financé jox la 10 millions yaa ndee la yow da ngay commercer si doomi jàmbur yi wala yow da ngay def ta yàlla ah wala da ngay def ta yàlla ak ah, yaa ndee la nag booy boo nga jëm ko ma dégg naa am na gone goo xam ne dafa xaddamaatu ji dafa gaañu ah dégg naa yow gone yi doo leen yor normal doo leen téye normal yaa ndeera bu fekkee loolu la président Macky Sall yow laay entrepreneur nga teel jël doom yi am foo leen yóbbu nga jëlee leen si yaa maa jël Diouf mi waaw te yaa ndeela yow gone yi sax dégg da nga ci wutub xaalis one time is joobin c'est mu wut larsa ay Karim Wade ngay tuddee ay ay ay Baye Antoine ay président Macky Sall Amadou Sall turu ñu riis rek ngay tuddee gone yooyu lu tax doo ma tuddee lëx doo ko tuddee de ah yaa ndeela mënoo xool sa doxet saw doxalin ah ku ñëpp tifli nga tooy te ñu ngi lay tifli rek yaa ndeel waaw ñaar ba yooyu yaa ndeel Mafia Diouf nit ñi ngi lay jox doom yi fu ñu jëlee doom yi dañ leen ëmbal ñu jël doom yi jël ko jox eh, ku ku dof dof lu ba ëmb mënoo téye sa doom doom ni mu neexee nga foofu bañ ëmbal la nga jël ko jox ko yaa ndeel Mafia Diouf ñaareel ba bu fekkee ne koo xam ne nii eh, da nga doon am doom sa doom sa boroom kër sa kii gaañu sa yaay gaañ amoo yaay amut doom amuti mbokk eh, yandeelam moom lii ngay def ne du sax euh, euh, doonu loo xam ne place la moom loo war a def yandeelam ndax bu fekkee nit ko xam dañ koo ëmbal xanaa mu ñu ëmbal ko mu daw bañ a jël ay responsable ñu ëmbal ko mu bañ ñu xam ne moom kat dañ ko ëmbal moo tax mu jël doom jël di la ko jox euh, loolu baaxut te doom moom mooy lépp am na ñoo xam ne sëy nañ ba dee mënuñoo am doom yow nga caaxaan ba am doom bu ko sànni wala nga jox yandeelam maa jot jox mi lor sa njaboot ñu noonu bu fekkee yàlla daa dogal bi nga amee nga am borom kër gaañu nga am borom kër euh, tool diggante wala nga am doom gaañu doom ju doom doom ju ndaw am ngay mbokk nga jox ko sa yaay wala sa baay wala say nijaay wala kenn yoroon la ko mais yaa Ndella Madior Diouf mi ñu ko jox benn doom waaw góore gaa ngi nii dégg naa daa gaañu lu ko rey dégg naa yaa Ndella yow Madior Diouf gone yi da nga leen war a toppatoo toppandoo leen ko dégg naa lan war a lekk lekkee wuñ ko lañ war a naanee naanawuñ ko nañ war a sangoo sangawuñ ko yaa deerat jooju sa sa géjum xeññ nag sa doomu ndey la koy wax te man maay sa doomu nday dama la koy wax man ak dëgg ma ba ci réew mi dégg ok